li muy def non seulement doylu na mais day rejoindre li ma maa wax muy barke. dëgg la yor ay million doyu ko. Mm. parce que bëgg na oto bu ndoy baan dawal mu dawal ko. ci bëgg na jabar oto mu dawal ko. loolu yàlla ci moom mu am ko mu gis Bijou Ndiaye teg ci télé bi mu ne tey ma teg ko. mooy bi nga teg bëgg na maquillage bu ah, ma doo def tey mu ne tey. Mm-hmm. donc yu noonu yëpp da ngay dugg ci ay problème sànq euh, ndoy baan mi ngi naan jànk yi aussi ñu xool kër yi ñuy dugg c'est important dama mës a déglu u liir benn confession benn xale bu jigéen bu wax na da doon jàng bi mu seen famille nekk ci ay tolof tolof mu ne nay liggéey nay dem mindaanu ji pour mën di fayaale jàng di fayaale jàngam dëgg donc loolu début bi muy daje nee na ak ay ak ay ak ay euh, ak ay patron yoo xamante ne ku nekk ak ni nga mel mais moom n'empêche elle faisait son boulot bu pare dem mais dugg na goo xamante ne ba tey li muy dund borom kër googoo ko ci duggal parce que xale bi rafet na mel na nu mu war a mel hmm. borom kër gi def na ko comme tam def na ko yaay wóolu ko début bi di ko jàppale di ko ñuy waxtaanee lu waaw ay waajuram itamit nangul ko ko xam nga ci lu mu ko dugal jaay boppam tux naan góor bu xam nga jóge biti ñëw mu ne ma présenté xale bu tey loolu la nekk di dundu avenir am kase na mhm. parce que début bi c'était quoi te yu rafet la woon xaalis dul jeex lañ la doon may tey ñooñu noonu au jour d'aujourd'hui gisatu leen ki nga xamante ne moom moo nekkoon entre guillemets sama adoptive ba duggal ko ci loolu noonu gis ko mu ngi nekk ci ay problème yu nga xamante ni munul bokkaat ci société bi mooy rejoindre un peu li ndoy baan mu ne nañu xam ci ban kër la du yan patron yu jëflanteel ah, parce que mhm. kooku tey bu amul ndimbal dëgg giiru jaay boppam moo nar a nekk métier mhm. te à mu ngi duggoon ci mindaanu pour fay école am pour xëj na ëllëg ak ci biir am lu mu kiiwee waajuram du ñëpp ñoo am euh, euh, mu dëgër ñëpp ñoo influençable tey pour nga influencer leen yoon mhm. mais mhm. si Ndiaye li nga wax ci yokk gis fi nga dugg noonu ndoy baan dana ci dikk léegi dugg nga ci loo xam ne moom kese thème la parce que baan bare na fi jànq yoo xam ni ñu baax ak ña ma ko war ña ma ko war sax nag euh, seen part bu góor yàq seen àdduna seen mhm. doom bu góor mhm. yaa ngi ci biir kër gi xam nga ndoyaan jigéen la ñaan yàlla sol ko ci dëgër bët oh. waaw de boo dëgëree bët bépp xeetu ci xeetu nga dugg ci di fa gañe am vision boobu yaa ngi nekk ko takku la firiw la mi ngi def ci yow du n'importe quoi boo xam ni su ko jabaram yëgee tey tey tey tey yow ñu génnee la ci biti tey tey tey te boo sàgganee dootuloo ko gisaat wala boo ko dee gisaat du la du la fir mukk du la lett mukk ci jiixi jaaxa ngay nekk ak moom nga passé comme ça vingt cinq ans mu lay fekk kër ak kër sa àdduna passé dafay dal jigéen ñun ñu nekk ci plateforme jigéen ñëpp ah. di suivre am chic di suivre ay sama jëkkër ah, sama xarit. chaque jour nga gis ci benn confession. bisimilah da ngay gis koo xamante ni. Euh, je pense su ma juumul mas naa ci liir koo xamante ni moom. jëkkëram da doon doxaan jànkam ba di ko ko wan nii. waaw bés ba mu taxawee. pour hmm. jànk bi génn këram jëkkër ji da ko ne yaay génn jànk bi du génn. Hmm. lu tee mën a ko takkal. mais lan moo tax wax na la cause yi. Ah, ah. cause yi. non du xam nga réellement nga bëgg-bëgg la rek xam am na ñoo xamante ne dañuy bëgg te yaag am na ñoo xam dañuy gis jànk bi bëgg ko c'est ah, ah, tout à mais nag mais da gis nga ji nga jigéen souvent fu mu tàbbi tàbbi gee ndooy baan kumpa jàpp na ma c'est que fu mu tàbbi gee <laughs> ma ngay wee c'est jigéen dafa dëgg ah. yow yaay buux sa jëkkër ci jànq bi wax naa ko sama yaay yaay bàyyi oh, oh, oh, objection ndooy baan waaw dama lay wax nag dara nga xam ko gis nga kër yi nga gis. waaw dina nu rey ay soxna yu baax a ci ne. mokk pooj bi ngay wax mi ngi ci ñoom. Hmm. yar gi ngay wax mi ngi ci ñoom. xamal sa bos yor kër dama lay wax waxuma sama bos de. ñun tam nee nañ ko yàgg ci loxo nun la téye nga xam ko waaye ñun dox nañu dugg nañu ay kër yu bëri. doy baan waaw da ngay gis jigéen bu mate doo gis exemple bu ndaw laa lay jox da ngay dégg diw ak diw seen yaay yee wujje doom bii bu toogee ne yaayam a gën doom jële bu toogee ne yaayam a gën moo ne yaay bu ci nekk dund na naqar ci biir këram. Mm-hmm. doy ba da ngay gis ay jigéen yu baax lool. Eh. jàll ñu ñu jàll ñu ñu na lool la yóbbuñu seen jëkkër fen jëkkër jee neex a yóbbu mooy dem. nan mm-hmm. waxante dëgg fi am góor ñu mel ni moom ah déglu ma doy waar. jëkkër ji ndoy ban kër yi ay soxnaa ci ne de. ay soxnaa ci ne baan baax mais gis nga clash ma am na sama client bu ñëw ne ma Eva daal bàyyi woo góor yi wallaay dañu xam àdduna am na góor ñoo xam ne bu dul ne dañu génn rek nam naral seen jabar mm. ci jàmm lañ ne de. dama ne barke Cheikh Tidiane ñooy def lu leen neex attends faami mu jëw ku ci sa jëkkër ku ci hmm, xam nañ àdduna tuuti de ku ci sa jànq hmm. songu sa jëkkër c'est parce que yow yaa bàyyi espace gi nga jëkkër. il faut arrêter ndoy ban. waaw waaw góor ñi bu ñu la bëggee jëlee waaw gis nga lu tax ma yaa ñuy bàyyi waaye fi ay jong ma pire. waaw kaay ma wax xam nga man waaw may ma ma ñëw man personnellement xam ngeen foo ma jëm. waaw may ma ma ñëw xaaral ma wax. ay na nga sant xaaral ma wax ay na nga sant man man man man soro man waxi xale nga wax. ñëpp may xasee ne foo ma fekk góor ñi laay faral. waaw moi je suis tout sauf féministe. waaw mais am na ci ay góor ñoo xamante ne le dans le bon sens. bu ma waxee féministe protégé la femme. am na ci góor ñoo xam ne nag maman. papa baan kenn mënu leen a tàggat taw dañoo doy waar am na ci jigéen ñoo xam ne <laughs> seen yaafus moo tax seen jëkkër macha allah duggante ak seen soxla jërëjëf jërëjëf loolu am na ci mais xam ne gisoo ko dëgg la mi ngi ci avion jabar joo xam ne gisoo ko. fu mu ne nii bu ma namoon dugg ci avion yi nii faaw ma arrêté. bu gisul jabar joo xam ne gisul. jànq bi ngay gis. périmètre gaa dañ koy occupé. waaw ah, waaw waa ji tey ji ja ñetti dooma ne ci kër gi ak janq bi. am hmm. na seen yaay xale yi dem na France ana na seen yaay ma nga Chine am na seen yaay ma nga seen yaay ma nga ca. campagne am seen yaay ma nga ca ca ca. maanaam dox dox ba doxi lu dul farata. waaw ah. seen yaay bala muy dugg ci kër gi. pour defi cordialité inutile dellu si waat benn femme moo nekk ci biir kër gi mooy toppatoo xale yi mooy toppatoo musée. mais su ko musee takkal takkee kay noppal na ndaw see. léegi ñaari yëf a am. waaw baal xam nga tukki boo gis. ni ñu koy waxee sànq wax naa ko dafa am tukki farata. Oh. yow nga ñëw jël ma soxna nga xam ni kii kat. am nii la def. wax dëgg yàlla li ca ne. toll na nii. nga xam ne dana voyager waaw. nga xam ne dana voyager par force. keneen ki nga gis jabar joo xam ne yàlla dafa dogal dafa war a tukki pour fajo jigéen a ngi dugg avion di dem saa su ne neexu ko de. gis ngeen dugg avion yi ngeen gis. wallaay am na ñoo xam ne dañuy dem faju waaju moom du faju wa ma ñëw déet kenn feebar ñaar bañ feebaroon doo. Ah, mais su ndaw si dëkkee ci tukki waaju feebar de <laughs> ma li ma la bëgg a wax mënuma ko ndax. dëgg la de li ma ko bëgg a wax. mënuma ko wax. Ah, mënoo di ba ta ah, tontul ma man ginnaaw tukki nga daal yow faju ji nga mm-hmm. te man ki may faj nekku fi moo tax yenn saa yi tamit ah. pakban yenn saa yi ah, ah. yenn saa yi sa borom kër wala sa soxna Aziz fayal leen ma micro ko un peu ci xëj na koo xaw a bokkal li ngeen di dund parce que liñ naan xar mi fi ñu koy yeew rek fa lay lekk tey euh, femme d'affaires bu sëyeeg femme homme d'affaires wàcc nañ maanaam ci gàttal le mouton le broute que là où il est attaché que Dieu nous en préserve voilà donc homme d'affaires bu sëyeeg femme d'affaires wàcc na ñuy àndandoo di affairante ci avion yi di wàcc am problème yow mi nekk ci wàllu média bu yeeg nekk ci média di ñu comprendre. ngeen di bind maintenant malheureusement les contraires bëggante wuñu peut-être. Euh, du du du léegi sax yeewu parce que femmes yi léegi dañu jànq boo xam ne. xam nga femmes yi xam nañ seen jëkkër da koy leer ni kii sama jëkkër du ko nopp. mbëggeel xoolul boobu la mbëggeel amul mbëggeel xoolul loolu. Ah, xam naa ko. xam nga loo may fàttali. baan baan laaj ba laaj ba dafa am lu ñoo def lu lu frère bu ma gisee jigéen ndeysaan lii di ko jëkkër di du genre am mhm. ah kii du genre am mhm. ne waa ji ba soo yàlla ban xeetu baax baax a nekk ci xale bi mag nii xoola yaa nga naan muy yën kii du genre gis nga gis nga amul genre dañu waxante dëgg nag. les femmes se valent. daa dégg ñu ne diw roturière la du ma wujjeek moom daf fi am. kaka wax gis nga eh, gis nga eh. ma ñëw ndoybaan gis nga dafa am ne bi xam nga lu luñ ci war a jàng di ko def nii mm. yaru dafa baax mm. yaa nga naan diw duma wujj ak moom faf sax nga daal dee génn xale ba toog sëy sëy bi nanu wax gis nga nit dangay am fulla mm. tey dangay gis nit ki ñëw ànd ak sa jëkkër nga naan moom de moom dana ko bàyyi dee déedéet da ngay def yow nga nekk ci posture bu baax. Mm. ba nga xam ne bu ëllëgee kat ñu ne ah diwa ngi woon ci posture bu baax jëkkër man na mën na def nangam mais li nga wax tem la de. tem la. dama am benn xam benn couple boo xam ne ku góor gi mooy wax ak man. nee na moom jabaram université la ko xamee. waaw ñoom ñaar ñoo jàngaloo université bokkoon lu doon suivre ñoom ñaar. sa grand yi maa leen ragal. ñoo génneendoo waaw grand yi grand la de. waaw xam naa doon génne université fii. takkante France ñëwaat Sénégal. ñoom ay intellectuel lañ yoo xam ni sawaay. BCBG maanaam ay tubaab yu. bon chic bon genre. Uh-huh. sawaay man suñu toogee sax maa ngi moom dajee restaurant sax man su yéegi man ko sawaay man danga may déranger sa comportement. tenue de table bi ba sa comportement. <laughs> Euh, mën naa dem këram añe fa. mais lañ ñu yekkal añ man xawma lu mu doon. ndax. Euh, ay tubaab lañ 7 mais jàng am. sénégalaise la jigéenu Sénégal la jigéen. day yóbbu xel mi. jigéen la carrément. mun ma booy. mun ma sama jabar ji yàgg nañu ñoo defandoo lépp maanaam su doon armée la ma ne sama classe de guerre la mais dëgg yàlla man janq bi ci kër gi laa bëgg. parce que moom li mu soxla ci jigéen nee na ci janq bii la ne. na jànk bi baax nee na nee na moom jabar ji yëgu ci dara de. man lay wax ak. na bàyyi balaa mu ko yëg ma nee na ma moom bala moo kontaan mu wàcc ñëw fekk jànq bi sol sol sol tenue de travail am ba wootu nee na sama sama jabar du woon ay kelot lay sol ak yu kenn xamul. Oh. ay daggitu yére moo tax mu ne fépp baax yaay waaw waaw acam coro jërëjëf moo tax ni nga mënee suuf nga a déglu ma seek yii ngeen sol waaw yéen yéen jigéenu Sénégal bi yii ngeen di sol yaakaar ni da ngeen yéen a ngi neexal góor ñi ay dangal déet déet bul dem foofu non fa jëm xam nga xam nga yii ngeen di sol mm. neexu ñu de dañ cee mënul dara léegi nga baal xam nga moom fi mu nekk nii li tem la sax beneen tem man dama représenté góoru Sénégal laa Sénégal xaaral ma ñëw xëy na yi ngeen di sol àjjuma waaw xaaral ma ngeen di sol àjjuma moom ngeen di war sol lundi ba dimanche waaw maa ngi ñëw ci sa logique xam nga tey mu ngi waxtaanee thème boo xam ne sax na mën ngeen ci amaat thème mais maman euh, problème mu <coughs> couple yi Sénégal en général ah. on me dira sëyu ma couple wu ma sax fan mais dañuy ah, gëstu yàlla na nga couplé ba ma dëngal sama tagal ji ñëw bu ma yàqal dañuy gëstu dañuy dañuy xool dañuy laajte on fait des enquêtes mais problème bi mooy hmm. euh, euh, nu ñu nu ñu nu ñu bindoo suñu société y a beaucoup de donc nit mu ngi sëy nit 30 ans xamul lu jëkkëram bëgg ak lu mu bañ bu weesoo lekk bii la bëgg naan bii la bëgg donc problème yooyu mooy kii wax tey tey nit a ngi sol tubéy sa jëkkër naa la c'est joli nga foog ni moom la bëgg fekk boo ko xoon mooy dàq mm-hmm. donc yooyu yëpp ay problème la yoo xamante ni ba ñëw ñëw ñëw indi na jëkkër bëgg eh, léegi moom nee xam nga xam nga coro jànq bi nee ko mu bàyyi xam nga na bàyyi mu dem ba aane biti bu koy takk takk xam nga coro moom la Maeva comme ni nga ko waxee affectueusement ndeysaan merci moom laay wax ne ragal ngeen jànq yi xam naa de. Euh, jànq yi daal yëngal nañ réew. waaw loolu sa wax la fii lappi lappi rek nangu leen jëkkëram. macha allah macha allah ay mm. ñoom ay femmes lañu. Mm. c'est tout. dégg nga Coro <laughs> dama doon wax ma ni fii ku mën ku yàlla jàppale moo fi am. day mel ni góor bu bëgg so jàpp soxnaam. du ne du sa ngóore de. Mm-hmm. yàllaa lay jàppale may la soxna bu xaj sa biir loxo. Mm. ne nga gis leneen. nga bëgg itam euh, ànd ak sa jëkkër yàlla lay jàppale dong gaaw dikk defar diggante bi ba nga xam ne du mun du mun euh, dëng wala du jeng mhm. ne li nga wax ne tem la senegal senegal fii sëyee fi dafa jafe lool torop torop benn wax ma wax ñu ree xale yi rafet na nañu mhm. dama xamul nag ndax bu nu ñëwee dinañ toogam danañ dem xam na parce que xam nga rafet coro yëf la oh. waaye mën yor kër itam beneen yëf la bu nu jaawalee ne ñu ngee def nii def nañu nii kii kër réalité kër gouvernement la. Mm. faw nga mën ko gérer. Mm. kooku du ay talon ñoo la koy jox. du mm. poosé wee booy def du périg booy. kon thème bi gën na gën na yaatu loolu. xam naa du ñàkk ñu thème le mariage. ubbi ko def def ci waxtaan bu mag macha allah. Ah, waaw loolu moom du du ah, mën ñàkk di ngeen ci <laughs> am solo mais li nga ci wax li am solo euh, yëpp bari na. Mm. li am solo mooy ñaan encore fois yàlla suturaal ñu. amiin yaa rabbal defaral ñu. amiin Ndiaye jàppale ñu teg ndey jooram ci kër yëpp. amiin incha allah parce que moom rek moo fi nekk. yàlla de ndey jooram ak càmm ñam yëpp sax moom. yëpp gën <laughs> voilà donc na teg loxo ci ñun. na euh, parce que euh, moom rek moo fi nekk. dëgg la tey nit mu ngi ci mu ngi mu ngi ci kër. Mm. ñu fay ko xëj na pour mu ñëw yàq si xëj na ñëwam boobu mooy defar kër maa Eva mii. macha donc li am solo mooy ñu xam ni. Mm. man tey. Mm-hmm. buñ nee diw mii kat coro mii kat diw mii da koo liggéey dama naan diw defuma dara yàlla la parce que yàlla la neex moo tax liggéey bi antu. Mm. bu ko neexoon mu demee neneen. donc bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu amee euh, xalaat boobu ak gëm-gëm boobu teg lépp ci loxo yàlla. Mm-hmm. lépp dafay sotti mais encore une fois. Mm-hmm. jànk yi nañu xam ne bu leen dara jaral seen dignité ñun ñi jànk yi di fekk si nañu xam ne jànk yi duñu ay jaam. Mm. ay doomu aadama lañu. Mm. bakkan lañu yor comme ñun bu ko defee ànd bi gën a neex. Mm. Euh, comme je l'ai dit tantôt c'est un plaisir d'être avec vous. kontaan nañu euh, Ndiaye merci beaucoup ci ci ci honneur bi ak privilège bi. jërëjëf mm-hmm. kontaan nañu Ndiaye boo demee nuyu ñu waa kër ga yëpp. yàlla yàlla defal leen jàmm ndoy